njàngum lakku wolof coowe yi coowe lifantu wolof am na ñaar ak benn coowe b c d f g x jë k l m n ñ ŋ p q r s t w x ak y taxawaayu coowe ci baat coowe ndorteli digg bi mujj gi b baat jubal dab c cin looco d dem aada fë fas safara saf gor ragal teg xë xos lexal saalix jë jom fajar xaj kuy suukar ak lë lem falu xal më mer tame lem seetlu coowe yi c ak d duñu taxu ci mujjug baat nu new tane geen ñë ñam bañal sañ ŋë ŋas dangar gang ë po ciipatu xë daqaar làq rë res Mm-hmm. jaaro wér së sol basi fas të taw nite set wë war dawal raw xë xel waxal lex yë yar nuyu guy seetlu cowepp du taxaw ci mujjub baat cowepp du taxaw ci ndorteel baat njàng mi ci topp coowe yu ñu seexal yi